di leen ziar lu bari te am kontaan te sama bis bi macha allah di sant ñu mboolem ku fi teew ñëpp di sant sëñ Cheikh Faye mi xam ne mooy borom école bi ak tout tànk yi di am mbégte lool di ñaan ci barke sëñ Fallou matatu sëñ Fallou bi matatu saison yi bu Mbàkke yal na leen yàlla defal barke. am nañ mbégte lool nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëñ Cheikh Samb di sant njabootu sëñ Touba gi yëpp di sant waa Daaru ñu am mboolem ku fi teew naa trop li ma bëgg a wax yëpp ci bis bi xam naa ñi ngi nuyoo ak cant bu baax a baax a baax di jiital si nuyoo bi rek soxna Maam Faati Mbàkke mi nga xamante ni tey moom lañ usi tey si bisam bu am solo bi bis boo xamante ne si wax dëgg yàlla lépp rek xam-xam la làmboo tay képp ku fi teew rek yaakaar naa ni eh, waxtaan yi fi yi fi jaar yëpp xam nga ne ni tey bis bi bis nekk na bis bu am solo eh, ñun nag wax dëgg yàlla dañ koy sant bu baax a baax a baax si turu eh, école Serigne Souhaïbou Mbacké si njiital Seyda Ndeye Gassama mi nga xamante ne si moom moo yilif école boobee soxna Mame Fatou nag dañ koy sant bu baax a baax si taxawaayam sa daara ja foofee ndax loxoom du mos a dañ sa daara ja lépp loo xamante mos jiitu loolu moom man mën naa koo seede avant may ñëw di liggéey sa daara ja gis naa gis naa loolu fekk naa fa loolu waaye ba ma ñëwee tamit euh, gis naa ni loxoom fa gën gën na saa gën na saa dugg bu baax a baax a baax moo waral tey suñu teewaay fii tey yaakaar naa ne xale yi waa école ba élèves yi ñëwoon nañ jébbal si daara bi nga xamante ne si moom lañ koy jagleel moom soxna si tey ñun ñi nga xamante ne si ñoo leen yor nekk foofu liggéey ak ñoom ñu ñëw ànd ak soxna si bisam bii di ko sant bu baax a baax nag. di am mbégte ak kontaante di ko ñaanal nag bisam bii nga xamante ne si moom lay def suñ borom kàttanal ko ba mu gën koo mën a taxawee ak mboolem jullit yëpp waaye suñ xol sedd na guyu wax dëgg yàlla suñ xol sedd na guyu di nuyu Seyda Ndeye gasamaat bu baax a baax a baax di ko ñaanal digganteem ak soxna si suñ borom gën koo rataxal gën koo dëgëral ndax kóllëre gu yàgg la ñu ngi ñaan suñ borom gën koo dëgëral di ñaanal soxna si mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal si bisam bii lépp lu si bëgg rek suñu borom defal ko lii moom nekk na lu am solo lool nekk na lu am solo tey képp ku fi teew sa xol sedd na si maam Faty ndax bis bi tey lépp rek dafa tegu si diine dafa tegu si xam-xam te nii rek na mën a mel comme ni ko borom xam-xam yi waxee si biir baas bi ñu ngi ko si sant nag di ko gërëm di ko ñaanal bu baax a baax di ko wax ni école Serigne Cham bi tamit xolam sedd na si yow ñu ngi lay ñaanal nga gën a gudd fan gën a am xéewal gën a wér ndax soo ko defee suñu njëriñ la ndax gën sa taxawaay ak sa jàppale si daara ji ñu ngi jéggalu kàddu yi nag. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di leen ñaanal tawféex bu baax a baax di am kontaante bu baax ak mbégte si bésu siyaar bi nga xam ni ekkeelu sëriñ Mouhamadul Fadal Mbacke moo koy amal ànd si ak ekkeelu sëriñ Sohaybu bu Mbacke ñu di ko defal soxna maam Faati Mbàkke bu bintu sëñ Omar Mbàkke bu sëñ muudu Maamun sëñ muudu Maamun bu maam Seex Anta Mbàkke mu nekk bis boo xamee ni bis bu am solo la nekk bis boo xamee ni itam dara yëkkatiwu ko lu mooy dundal diine dundal islaam dundal itam ak taalibe ndax tawfiix da si am boo xamee ni yàlla rekk moo xam di boole ndax yàlla dafa dogal bi ñuy def siyaar bi ñu sos ko ñu dem ba ci ay at ñu xamante ak soxna Ndey Gasama nga xam ne ñoo bokkoon benn daara di jàng yàlla dogal Ndey Gasama ci boppam sax moo njëkk indi xalaatam ñëw fekk si ma si bis bi jàppale ma ci ñu bokk ko mu mel la man moomatuma bis bi ñun ñaar ñëpp ñoo ko bokk c'est la si gën a neex e kenn ku nekk rek ku si gis soxna maam Faty da ngay jàpp ni yow yaa moom maam Faty ndax nday gasama dañuy waxtaan lu bare bare bare bare ma di ko gën a encouragé mu di ma gën a encouragé ma ni ko soxna si ñun ñaar mënuñu ko séddoo mënuñu ko paccoo fokk rek dañ koy bokk ndax ñun ñaar ñëpp soxna si lim ñuy defal ak fi ñu taxawu ak fim ñu féete man sama wàllu bopp ak soxna Ndeye Gassama mu ñu gënal ay millions yoo xamee ni danga koy takk di ko joxe ndax ku toog ak jëmm ji rek boo ko xoolee dana la fàttali maam Cheikh Anta dana la fàttali itam dana la fàttali itam maam Xaadimu Rasuul ma loolu nag moo gën ay million moo gën itam lépp loo xamee ni moom doomu aadama da koy am si kaw suuf ndax àdduna lii rek moo fi nekk àdduna lu baax moo fi nekk ak lu bon. lu baax nag boo demee di si daw dana jafe ndax boo nee bërët dana am ñoo xamee ni dañuy dem dañuy wax ni kii day li muy def du dem waaye nag bu fekkee ni da dogu boo dogoo rek incha allahu taala da nga bokk sañu yàlla di wax naan wa minhum man xadaa naabuhu loola nag yàlla nañu ko yàlla defal di wax soxna si ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal tawfiix di la ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di la ñaanal tam lépp loo xamee ni naal nga ko si islaam yal na la ko yàlla may nga àggale ko ni nga ko bëggee képp koo xamee ni mi ngi lay xaar yal na xàdd képp ku la tëwu yal na bokk si ñi nga xam ne moom la yàlla di wax naan ba rab inna rabbaka rabbil mirsaadi inna rabbaka rabbil mirsaadi yàlla nee na bu fekkee ne dangaa jël koo xamee ni dafay liggéeyal yàlla nga tëru ko ni doo dem yàlla nee na yow ma koy tëru yow la ñuy far di tëru kon soxna si ku la tëru yal na ko yàlla tëru defal la tawfiq soxna Ndeye Gassama yow itam fa tabaarakallaahu ñoo ngi lay nuyu bu baax di la siyaara di la delloowaat sa njukkal ndax ku am xam-xam nga ku am yar nga ku am yëg-yëg nga itam si doomu aadama ndax lii yombut nit sos mbir nga ñëw fekk ko fa jàppale ko si mu mel na sa mbiru bopp la sa wallaahi mbiru boppam la ñoo ko bokk ëppaleetuma ko si bu ma waxoon ni siyaar bi dama koy amale barab sàngam ñu fekk si ko fa sax soxna si ànd si bu soobee yàlla foo mu wax ni fa lañ koy def foofa lañ koy defee kon soxna si lii yàlla na nekk ay at yi yu bare bare bare bare ñun nag xam-xam euh, baralewuñu ko waaye la tax ñu suubu sa rek mooy baytu sëñ Tuubaa ba mu doon wax naan laa tatlubanna mujarrida riwaaya bal duma ilmuha ila diraaya nee na booy sàkku xam-xam bul sàkku xam-xam ngir diw moo bare xam-xam waaye nee na sàkku xam-xam ngir jaamu yàlla na nga sàkku xam-xam ngir dindi si réer loolu rek moo ñu dugal si xam-xam ñu bëgg na nga ñaanal ñu si tawfiix bu baax a baax a baax incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu min seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim sama mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare yéen ñëpp nag ci bisub soxna maam Faati Mbàkke bii nag nga xam ne maam Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm borom daar salaama gaawaan mooy maamam di sunu yaakaar tey ak ëllëg waaw kon soxna maam Faty Mbacke waxtaanam ci waxtaan ci moom yomb na yombut ndax Mbacke dafa bëgg ñëpp ñëpp bëgg ko kon soxna maam Faty Mbacke mi bisam bii dafa war a baax bisam bii dafa war a bari ay nit bisam bi dafa war a neex nag neex na sax nag kàlla nag tax at mu ne ni lay mel Mbacke ñëpp di ko ñaanal soxna maam Faty na fi yàgg ca wér soxna maam Faty yàlla nag fi yàgg ca wér Mbacke lépp li nga yéene liggéey ci yéene liggéey ci liggéey bii sunu borom jàppale la ak Serigne Touba ak maam Seex Anta sa maam nga yegg ca nu yeggale nga yeggale Mbàkke ñu yàgg ko ànd ak yow nag ndax soxna maam Faati moo bëgg ñëpp ñëpp bëgg ko soxna maam Faati amuti noonu soxna maam Faati mag ndaw góor jigéen ñëpp la soxna maam Faati bëgg kon nun soxna maam Faati nun dañ koy fas yéene jàpp ak sun fukki loxo ak juróom-ñett lu ko jàppoon jàpp nan ko man Baye Fall soxna maam sa Mbàkke ak lu kafe te sa Baye Fall soxna maam Faati nga bokk soxna maam Isa Mbàkke lépp nag man mii maay waxtaan ci yow soxna maam Faty lu ma xam te lu baax dinaa ko wax ci yow ndax yaa ma bëgg bëgg ñëpp bëgg ñëpp bëgg la soxna maam Faty sa bis bii ngay liggéeyal sa sa maam ja yal na ko sunu borom jàppale la jàppale bépp julli nag soxna maam Faty foo bëgg yegg yal fa yàlla yeggale soxna maam Faty liggéey bi yal nañu ko yàgg ànd barke sëñ Bamba ak soxna Koole Samb mii nga xam ne moom nga nekk ci kër gi nag ak waa kër gi nag ñoom ñëpp ñu baax amul soxna maam Faty amooy noonu soxna maam Faty ñëpp la bëgg nga bëgg ñëpp. bis bii foo ko bëgg a yeggale yàlla na ko sunu borom jàppale la nga yeggale ko fi na nga ko bëgg a yeggale nga yàgg ko ànd ak nun nag Mbàkke man de wax dëgg yàlla doy loo nga ma ci safoo nga ma ci faale nga ma ci bëgg nga ma ni ma soxna maam sa def ca kaw de te nga ma fa may itam de jàpp naa la sama fukki loxo ak juróom-ñett ak ku ma àndal xam naa bis bii lu ma ca man suba ba ca ngoon naa ko def ni ma ko defe at yi yëpp it nag fu ma toll yi dinaa ci nekk nag Mbàkke man de maa ngi lay sant di la gërëm sant naa la gërëm naa la sant Kole Samb mi ca kër gii du ñëw ca kër gii mukk ñu di ma teg beneen kanam kanam gu ma gu tey bu ëllëgee dañ may gën a rafetal geneen kanam barke sañ Bamba sama gor yi ci kër gi sant naa leen nag waaw yal na ngeen yàgg ànd liggéey bi noo yàgg koo ànd ak taaliba yëpp nag soxna maam Faati waaw ah ndog yi moom tubaarkàlla macha allah ndax ndog yi barki yàgg nañ ko préparé ndax ndog yi soxna si bu weer wi teroo mi ngi koy tàmbali ko préparé wax dëgg yàlla salaat saa nii galaas gaa ngi nii boisson baa ngi nii lépp a ngi ne ganaar yi nag nga waxaale ma ko moom tubaarkàlla Mbàkke lépp na gaañ lépp naal lépp jag na lépp jag na daal tubaarkàlla macha allah moom daal ku fi ñëw teew si danga ndogu di nga yóbbu tubaarkàlla macha allah soxna maam Faty yal na fi yàgg soxna maam Faty yal na fi wér barke sëñ Bamba fu mu bëgg a yàggal liggéey bi ak taalibe yi yal nañ ko ànd di ko yàgg liggéey at yu baree baree bare baree bari barke sëñ Bamba soxna maam Faty yàgg fi ca wér maa la ko ñaanal nag. addu rafet na. waaye yaaram seex loo ci wax bàllaay sa buri danga dañuy dolli waaye soxna maam Faati Mbàkke nii muy def rek nii la war a def maay borom daaru salaam rek doy nag mën a bernde te ku dëkk ca seen dëkk bee gis nay waajuram di def xam ne soxna si nii rek la war a def daaru salaam day neex day doy bu dee waañu kër sëñ Omar wa day neex day doy kër seex Anta kër sëñ Saam Mbàkke ba ca kër sëñ Mbàkke as waajuram wa ñëpp berne lañ xam togg joxe lañ xam ba tax na soxna si bis bi bu ñëwee danaan nay doy nay neex aw ma lu samay dëkk bu ko neexoon bis bi su koy berndeel yemale ko ci ngan gi ci kër gi ñu ñëw lekk waaye day tibb koñ bi fu ne la yóbbu bu leen segg kafe bu leen def dara lépp danaan nañ ko jële fii te ku ne xam na ne loolu metti na waaye nag doon joxe ak dib yaaram ak xajoo ñëpp moo war a teraangaam yi bu koy def muy doy di ko ànd ak waa kër gi nag soxna Kolle bi mu fekk ci kër gi ak njabootam gi jiital leen nag jël yëpp jébbal xale yi jël lépp jébbal ko taalibeem yi koñ bi képp ku fi nekk rek soxna si bëgg na la boo amatum xel sax danga naan man man rek la soxna si bëgg te fekk na soxna si ñëpp la bëgg kon nag ñoo ngi koy ñaanal bisam bi yàlla na dund bam di ci rayi giléem di ci rayi nag ñu fekkee lépp tatal yàlla na ko yàlla may wér wér may ni ko yàggal ko ci suñ kanam ni yàgg ci ginnaawam sunu xol sedd na ci moom yàggal ko sëriñam bu baax bi nag di bàyyi sàmm ndax nag tubaarkàlla maasàllaa ku ne xam na ne rek lépp rek rafet na te lépp jekk na yàlla nañ fi yàgg te wér ñu yàgg feek ñoom suñu xool sedd da koñ bi nag ñëpp ko sant ku mën a wax ak ku mënta wax it ñëpp a sant soxna maam faat ndax ñëpp lay defal bu nu jàqee moo ci gën bu nu jaaxlee moo ci gën bu ñu amee soxla moo ci gën ba bërki démb sama bisu bërki démb bi da koo jël ci man taxaw ko defar ko ba bis ba lépp jag te nag bàllay sa bu toogoon fii di nu ñaanal rek lum ñu ñaanal day nu doy ndax lum ñu ñaanal dañuy dal noonu amoon na lu dul sëriñ Sam Mbàkke mi nga xam ne moo waajuram a bokk lépp keroog bañ ñee cëpp fii mu ne bis baa ngoogu ci seen loxo màggaluk daaw jeeg sëñ saam sunu sëriñ la ko tudde ren mu tudde ko sëñ sëñ Abdou Karim kon bis bi yàlla na ko yàgg def nuy fekke sunu xol na dëkk kontaan nan taalibe yi bëgg nañ ci moom bisam bi daal dañuy ñaan mu di ko def di ko def ba màggat ñëpp di ko fekkatatal te bis bu dikk rek yàlla na gën a dàq at mu ñëw yàlla na gën a neer kontaan nan yéen ñi saytu bis bi it leen ci dara dara nag jeexu fi benn yaa nga ne ginaar yi doy na salaat si doy na fur wi yaa nga ne kane di dara manqué wut macha allah ku ñëw ndogu ku ñëwuti tiraanga ji dalay fekk ba sa kër nag danaan tibb leen yóbbu kon Balaye sa lim nu mën a lépp mi ngi koy def yàlla na fi yàgg nu yàgg feek moom. man xamewul nit ki nekk Sénégal ak ñàkk a nekk Sénégal toujours yitteem dafa nekk ci moom rek xam ne deret dañ ko war a dundal dañ ko war a doxal lii nga xam ne mooy slogan yi xew léegi te Serigne Touba wax ñu ko jàngal ñu ko ba tey Serigne Touba li mu am amewu ko ci man diwuma jur walla nii laa toll wala fii laa jaar gis nga nit ku nekk ci këru àdduna day wax ak nit léeg-léeg mu naan la kenn gënuma nit ku ne xam nga kër a gën ci kaw suuf koo toogal rek xam nga ne moo la gën waaw li li li li nu wax kañ kenn xamewu ko mooy inna akramakum hindallaahi atqaakum xol ba gën a ragal yàlla ba gën a jege sunu borom kenn xamu ko ku dul yàlla waaye nit ku ne moom xamu ko am na jikko yoo xam ne koo toogal lay xamu ko li Sëriñ Tuubaa wax na li am na asla kulla naasi xool aar wa aaro min tiibul turaab kon nit ñëpp ci bana suuf lañ minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa wax na ne tamit fa kullu fa kullu man nasrafa ci la fal kël bu xëru minhu doon al-ixtiyaar yi képp ku gis ay xaj la wax de cilaab la wax waxul benn xaj ku gis ay xaj defe ne xaj yi yaa leen gën benn xaj ca xaj ya sax moo la gën ngeen baal ma ci terme bi kon Serigne Touba njàngaleem dafa wax dëpp loo ko njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que yonent bi dafa wax sa wax ne laa yadxulul na man kaana fi xalbihi misqaala sarratin minal kibr rëy du nekk ci xolu doomu aadama mukk borom di koy duggaale àjjana walaw bi dàmmil nabi walaw bi dàmmil mursil donte nga ab yonente nga wala muy sax yonente bu ñu yónni ñu ne ko waaw misxaala sarax mooy misxaala boobu nga misaale ak du ko am mukk di duggaale moom àjjana mu ni leen jant bi buy sox wala muy fenk ci xaraafalu sàkket wala xaraafalu sek seng booba yooyoo amoon ñu ne da ngay am gis bën-bën boo xam day am cunkóor bu cay dal am ay fepp yu ndaw yu ci nekk di xaw xaw mu ne benn ba ci gën a tuut te bët mënu ko gis mooy miskaalu sara bu nekkee ci sa xol ci rëy rek mënoo duggaale àjjana loolu rafet peñewu tuwaaletu comme li ñenn ñi di def noonu mu ne leen déedéet laysa al xusnu fi siyaaq laysa al xusnu fi fi naxri laysa al xusnu fi jismi innama al xusnu fi xulub xusnu googu nag bokk te xusnu gii firi jagle xusnu googu ragal lay firi toroxam muy leen ragal nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci dàll nekkul ci jëmm nekkul ci feneen fan la nekk ci xol la nekk ñu ne kon bu rëy googu ngay wax lan la lan la bëgg laaj ba xam fu mu nekk mu ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla daal dafa rafet dafa bëggul rafet waaye nag pousson bu rëy boobu noonu firkuloo ci xol lay nekk xol bi nag mooy waral koo gis rek defe ne yow yaa ko féete kaw wala yaa ko gën wala diwee sama maam wala diwee sama baay wala fii laa nekk wala fawante foofu laa toll soxna Fatou ñu ne duxul ci loolu damay gis ci bari yoo xam ne lu ma bàyyi Seex Sàmb mën a wax ak lu ma soxna Fatou bi mën a wax ak lu ma mën a seedee ci sama bopp que bu fekkee ne sëy bu baax ak jàppale sa borom kër mooy mayee ëllëg àjjana ma xam ne moom ku mu àjjana ëllëg doo ko dugal àjjana loolu moom seede naa ko moom te dama ko xam ci ay yitteem xam ko ci ay jëfam xam ko ci ay maqaamam te nekk nit koo xam ne su toogee fee ñaw ay ñawam ba noppi ma nga ca biram yooyu ñuy sol di cay def lu saf su kër gi di jaay ma nga ci yeneen business mi ngi ci loolu lépp xeetu ma bëgg a dundee lu lew bëgg bëgg bëgg xam boppam bëgg xam fu mu teg boppam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp te jaar na ci ak sàmm jaar na ci commerce jaar na ci lépp alors naka la ko nga ne rek mën ci famille nangam laa bokk ba tax mënumaa liggéey am na benn mbokk bu baax bu ko waxoon fan yii ci ginnaaw que Serigne Touba bayu lu mën a consommer di koy donnante ba tax kenn ku nekk taxaw mën a fas say loxo bañ liggéey loolu ñu bari cité nañ ko noonu mais lim ci jubloo wax mooy bàyyiwu fi loo xam ne dane bu kenn liggéey ba noppi di teer ku ne xam na ne barke sëñ Touba sëñ bi ngeen seede bu yéen ñi ñëpp di dox ñu ñëpp ay aventurier lañ ci àll bi lañ dëkk ànd ak taalibe yi waaye ku ne xam na ne sëñ bi am na loo xam ne aada la ci ñun di sunu ndona kenn mënu ko dindi ci taalibe yi. waaye nag liggéey dafa am solo liggéey ab sëriñ it mënut a ci benn métier ndax koo xam ne li nekk ci sa ginnaaw ci borom kër yu ndaw rek kenn xamul nu mu ak soxla yeeg yeneen yi taxaw ku ne xam na ne benn métier dong mënu laa waaye nag boo ko boolee di foq ak baaraam timit laaj bi addi yaaka def yooyu war nga cee boole yori tool nekk ci leneen loo xam si nii war nga cee génnee sa économie wala dara kalaasu soxna Faati googu nag ci loolu lañ teg seen tànk ci loolu lañ leen xamee plus que nag. moom ñi mu bokkal Serigne Touba bokk ak ñoom maam Cheikh Anta kum ci dajeel même boo ko magee sama mag la lay wax même bu la magee sama mag la lay wax dafa gaaw ci toroxlu dafa gaaw ci wàcce boppam dafa gaaw ci jox nit ki gëddaam bi mu doon te ku ne xam na ne doomu aadama yàlla da ko teral ba bëgg foo dajeeg nit rek nga wàcce sa bopp jéem a xam jéem a xam jéem a xam jéem a xam sa bopp waaw kon nga xam ne mag leen di seedeel ci kàdduy kilifa yi ma yónni nag ndax moom du nit ku ndaw ndax ku am communication la te day wax ak ay kilifaam am na ay kilifa yoo xam ne xew wii su ko wootee woon nam ko woote wootee fu mu doon fukki baas fii ci xew yi ci koñ bi du doy waaye nag bañ a def désordre ak xam boppam moo tax mu yemale toujours fi muy def baasam sax da koy yemale fi moom waaye bu fekkoon ne wootee na ko rek fii ku fi doon de fukki baas du doy ndax dafa am communication te dafa jaxasoo nit ñi kon nag ñi ngi leen di seedeel soxna Fatou mii mën naa yëkkati nit ku ne weeru koor yi moo xat waaye moom mii mën naa yëkkati nit ku ne te seereel naa ko mbokk yi fi nekk yëpp di ko seedeel it mbokki dëkkandoo yi nday xaqul jiraan dafa am xaqul jiraan dafa am te mbokki dëkkandoo yii lépp looy wax ci nit da leen ko war a seedeel ndax bu noppee ñun ñëpp dañuy taal suñu oto dem tam ñoom ñoo fi nekkaat ak soxna Fatou mii sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénkaat soxna Fatou mii di koy dénkaat bàyyi seex sàmm waaye di leen di dénkaat njabootu soxna Faati mii ngeen jàppal ko ko te téyal ko ko te xam ne gisul lenn bu doon mel moom dong moom sëriñ bi nee na bu tëddee dana nelaw bu doon jigéen ñëpp jigéen ñi sant Mbàkke ñëpp wuyoo Mbàkke dong ñëpp bu meloon ne soxna Faati mii yàlla xam ne ne bu tëddee dana nelaw mi ngi leen koy seedeel yi ñëpp di ko seedeel mbokki dëkkandoo yi di nuyu timit ci waa koñ bi moom ci turu soxna Faati mii nee mu ngi sant bu baax waa ka sëñ Modou Xabbaan yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi rawatina waa ka sëñ Ibrahima Mbacke yi nga xam ne ñoo nekk fii ci koñ bi nekk feek ñoom te bokk sëñ Touba bokk moom sëñ Modou Ndumbe Xabbaan bokk maam Cheikh Anta mi ngi leen di sant bu baax di leen di bu baax te xam ne nee na dëkk gim ak yéen fii de jël na léppam léppam jël na ko la maam Anta amoon lépp jël na ko jébbalaat ko waa koñ bi xam ne lépp lu ngeen bëgg rek pare na ci loolu pour ànd ko ay nitam ak i taalibeem def ko ak yéen mi ngi sant it mbokk yi ñëw fii yëpp te dem ak mbokk yi fi ñëw ut yëpp ustaas bii doon wax ku ne xam na ne xam-xam du jeex te ku ne xam na ne boroom xam-xam plus que mi ngi wax rek xam-xam bi day gën a génn te pédag yi ci xam-xam dafa bokk ci sooy wax nit ñi li ngay wax mu dugg seen xol ba noppi nga di leen di reeloo seeni bañ di génn waaye dëgg la nag fàttali nit ñi yomal xiyam baax na lool waaye nag nit ñi tamit léeg nag nga delloo leen ci li nga xam ne si nii mooy bégal seen xol li nga xam ne moo tegu ci xam-xam nekk ci mbindum Sëñ Tuubaa bi da cee baax te ku ne xam na ne pédagogie boobu moom la ustaas bii di waxee xëy na temps bee xat rek waaye bu fekku woon loolu kenn du ko dagg ndax li muy wax lu nit mën a yanu maanaa lu nit mën a dégg la te xam-xam kenn du ko yërëm kenn du ko wet ca digg ba ngay jaar comme ni ko borom xam-xam yi waxee ndax sëñ Tuubaa da daan wax da daan wax dara boo naree traduire muy la hmm, jaaral fan ko war jaar ko fa ma la ko waxee jaar ko fa ma la ko waxee te ku ne xam na ne njabootu sëñ Tuubaa gépp ci tànk yooyu dong la nekk ci tànk yooyu dong la ñuy doxee kon soxna Faati ñii ñu ngi leen di seedeel ci kàddu sëriñ bi daal ci ne daal ñu ngi koy sant di ko gërëm te bis bii muy woote yàlla na ko yàgg ay woote xale yii nga xam ne si nii ñoom la jaboote tamit tan nekk ci àll bi yàlla na yàlla teg ci ñoom loxo yàlla na leen yàlla barkeel yàlla na leen yàlla def magum jàmm di leen di sant bu baax di leen di gërëm bu baax rawatina nag mbokk ci bopp yii fi teew jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa yaa wab yaa maliki la nayka kamal bi roy sawaaru bi jaay manay suma سادة تخارب سمس تخاربها في السوء أقمار أو النوايا النوام فيما يرى بصر بار أو عليها بار ونار للبدر نور أسيم الصنار بي لكن إسا لم يكن للشمس إسوار للخسف تون لدى عين لوى نصرت لكن إسا أولع لم تنبت سجار سن بمبنان يكون للبرما انت بمسربو لكنه من خليج البر يغتارم أتل مر ولا كالبابل مر سجمل ولا تجار الندى بالماء أمتار سكى المراس الذي أرجو رجاء تبي دنيا وأخرى فليتي أول أجار وولسي قد جسمي عن سيارتي laakin lisaani nokkal xalbu sawaaru dam neena lawaleyaa li wajilaayee daynu sanaan musasanin kulla aamin yawma yuqtaaru wa huwa najibu lasi fi wasiqal xati wa qul la tasjaa un waazaarum ولم يجن من سوء إفلاخ والبلخاء بسكي واسري مما سمن سارم أن الفساد تران بسنا مدوا وليس يدرك بالأكوا بتيار سن بمبنانا كم وازار والبصير قد بروا وكل سروا نور وأسرار فمبلغ العلم فهم يا لوا بصر ونبر وأقل وأفكار فلا تقسوا ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنة عمر للمصطفى خير خلق الله من سلة لو جانا كل الورى ramal wara nayla faddilil musrihi nogolo ko sopp Serigne Fallou Mbacké defeni na màggal borom dinde xayra ramal wara nayla faddilil musrihi nolawa wal fallu yinda rasulillahi xarraru kilta yedey lahab sayuntula simo basulun wa basun liman laano wa man jarum lawo من العلم ما لم يوي بصر أو جن أو ملك وصدر مسوار لهم لدى الله سر لا يتالي بالكد وللمرهبان وأخبارهم بالصب جادل بار بار بار بار بار بار بار بار سخجر ولا سقاب لخوف من فرارا قص قصر مام شيخ ابراهيم فالنا لا من العلم ما لم يبي جبل لقد نسى في البرايا وهو صبار إن رسوله لسيف صرار به مهند من سيوف الله بتار دمنا لكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجار خدمه مسلما تبقى ما يأوى ويختار ولا لمن باتزاز غدا وصرفت لأنهم للوراء سادة خيار بيسخ مرتلى نانا وصبي خريما أقرانهم سبخهم إصبارهم أجروا والباد أنصارهم لأملة الله تخصيص بما سبيرهم umu nuju min xamin fi du jasaaru sëriñu seex man du mexa banana bi xalq wal imaane qad jubiro turon wa xabdilla si axlatu kufaaru wa sabu walil mudaaba lil jami kamaam kaanoo yadiimoona taqwan wa ismuha daaroom لا سيما الخلفاء صديق ما عمر عثمان وعلي نعم الأمر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا الله يا من لا إله خيره من يجيئني دواما خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيئني دواما خيره والآل وليستجب لجاهه سعاني أنت الرحيم الملك القدوس لك علي السكوت والتقديس العزيز رب والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبر الله تكبر خالق يا بارك يا الخيل والإهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا خير من يروي لو مسلوم حبيبي يا كبير لك علي شكر وتكبير عفيس يا مقيت يا عزيز جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا من له تعمير وتقييمه أنت الودود والمجيد البائس إلى سناك ساخر البواعث أنت سيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت الخوي والمتين والرحيم فناؤه ضاع فيه نبئ يا محيد محيي يا مميت أنت الذي تحيي الخرايا وتميت يا حي يا خيوم يا واجد يا سلطان ماجد يا قلوب حد الهديات وعند يا بالمقدر وبالمقدم وبالموقر أول يا آخر أنت سائر الباطن لزين المزاير وإنك الواحد تقم كونك ليصبي فلا تقم وإنك العفو الرؤوف يا خير من تجاب يا مالك الملك الذي مرامي لديه سرجران والإكرام muqsitu yaa jaamiu yaa xaliyu yaa mamnu artaji xabula saxiya ata allazi an sababin xatuxni man sito min alwara yaa muxni yaa man bihi xalbi dawa man xaanu واتني عن العزايا مانع من يقيني البلاء والإدرار وكل وكل ما يسوء قلبي يا دار يا من يجيئني نور نافع وفي خدم بفضله يا نافع يا من فادي أبدا يا نور بكوني لي أبدا يا نور يا من نور صرت بتابي وأرتجي فوق المنى يا هادي يا من عليه سكر بمديح فلا آدي النظام يا بديع يا من يدوم لي إلى الصباح لحسن سنيا به يا باقي يا من لديك اسمه كل عارس كونك لي سخيرتي يا وارث ومنك ياتي قلبي الترشيد ألام والصفاء يا رشيد يصلح لكتابك المسمور بفضلك العظيم يا صبور يصلح لكتابك المسمور هلا رسول